ndeysaan Pape Maron ak Fils de Batlen ñoom ñaari ngi noonu plaqué dara xewul ñaari mbëri yegg nañ suuf jugaat jëggandalu nañ est-ce que di nga ci génn génn na ca daan na ko wala déet daan na ko xale ba daan na ndeysaan Ndeysaan Ndeysaan Pape Maroon ak Fils de Batling Siki ñoom ñaar ñu ngi noonu Ndeysaan gars yi seen yaram tàng na ngay daw Ndeysaan daan na ko Fils de Batlen daan na Fils de Batlen daan na Pape Morène kaay ci ambiance bi